dama nekkoon Sénégal boo xawee jekk tuuti nga doon jigéen xale bu jekk am fula am nag ñàkk sa chance boo xam ne amoo gannaaw maanaam amoo nijaay bu am doole wala yaay bu am doole wala mbokk boo xam ne dafa bokk ci mbiru gouvernement bi lépp loo xam ne sa àq sa yeleef la daanaka dañ koy sarafañe ci jamono yooyu ma màggee man muy dee années quatre-vingt à quatre-vingt-dix ba ba may commencé liggéey en mille neuf cent quatre-vingt-quatorze laa commencé quatre-vingt-quinze laa commencé jàngale quatre-vingt-quatre quatre-vingt-quinze ma affaire boobu li may gis Adji Sarr li mu dund mu doon naa ko dund bu fekkul woon sama yaay insister pour que ba jàng am ay diplôme parce que néewoon nañu doole aw ma gannaaw comme ni Adji Sarr amul gannaaw nii man su doon sama bu doon jamono yooyu amoon naa ku mel ni man ni may jàppalee Adji Sarr kon tey xëy na sommité lay nekk sur le plan international ci dans mon domaine na serait-ce que domaine bi la xam ne mooy sama domaine de compétence. ok léegi dañu yow comme ni Sénégalais di wax mooy mooy beneen demande bi rek waa Kër Sonko yi ko si comme que yow dañu lay fay ngay jàppale Adji Sarr wala. yaa may dégg. bi mooy daw Adama. ma ne ma ne ndax dañu lay fay soo gisee ma jàppale Adji c'est parce que ah. non beneen maa ngi ci beneen question bi di Sénégalais di laaj mooy ndax dañu lay fay. ndax pour ngay jàppale Adji. bi comme ça euh, volume kii bi connexion bi gën a baax. waa dina caméra bi. Adamo. waaw. Adamo. maa lay dégg waaw. dama ne damaa gis sama bopp ci Adji Sarr di doole. amoo gannaaw amoo moyen te nga bëgg réussir am jom loolu ñeme liggéey loolu moo tax ba tey damay gis a gisaa gis sama bopp dans les années quatre vingt quatre vingt dix ba nekk Sénégal aw ma kenn ku ma jàppale aw ma kenn ku ma dimbale pour que réussir ma xam ni tey am naa chance amoon naa chance mu ngi doon dund ba ma teg ci yoon ba mën ma ah, ma conseiller ba ma rëcc yenn pièges yi Adji Sarr chance boobu la amul yaayam dundul yaayam sa maman n'est pas là te papam dafa sori te néew doole donc te amul vraiment gannaaw bu ko mën a aar mën ko euh, guider mën ko orienter mën ko fexe ba mu mën a rëcc yenn piège yi nga xam ne moo ko yóbboo li mu dund tey lu métti li mu dund deux dernières années yi ou bien trois dernières années yi. ok léegi ma ñëw ma ñëwaat ci demande bi de ma ne demande bi mooy Sénégal yi dañuy wax demande question man maa la ko laaj ndax François Hélène yow dañu lay fay pour ngay défendre. France kii Adji Sarr wala déedéet. Eh, euh, euh, Adamo ah. amul benn doomu Adama bu ma mës a jox cinq francs pour ma défendre Adji Sarr. waaw ba benn yoon la ay waxtaan cotisé premier ñëw bi ma ñëw muy da muy ba yëf yi commencé au mois de juin deux mille vingt et un ci la ñenn ñu waa CODAS cotisé lu day ni deux millions plus ou moins bu ñu ko dajalee deux millions ba deux millions cinq cent lañu cotiser cotisé participer. ma ñëw jàppale Adji Sarr mooy ci événement yooyu te man sama bopp dépensé naa ci lu ma deux millions cinq cent à trois millions donc xam nga kon man amul ku ma fay ñooñu dañoo ma jàppale ñëw yi ma mujjee ñëw nii amul benn waa CODAS boo xam ne cotisé na ci dix mille francs ma ñëw nii amul benn doomu aadama bu ci cotisé cinq mille francs sama alal ak sama yéene ci Adji Sarr ak yërmande bi ma am ci moom jàpp ko comme doom yi ma jur moo tax man as li ma am man as tuut ma ñëw di ko bokk ak moom di ko mu koy bokk moom ak sama njaboot. parce que dama ko boole ci sama. <coughs> ok léegi gisoon nañ la yow tamit nga demoon ay temps nga bàyyi Adji Sarr lu waraloon problème boobu. gis nga dafa am nit ki booy xeex da ngay utiliser sa cerveau. waaw comme dafa am du ñëwoon di buuxante ma bàyyi leen ko woon ñu woon àddina si gis ni liggéey bi man maa koy def mais du ñoom. waaw. li dëgg bi Adji Sarr soxla plaidoyer bi réseautage bi réseau bi. xeex bi ci réseau yi man maa koy def du du keneen ku doon wax ni may yaayu Adji Sarr wala man may magu Adji Sarr wala Adji Sarr maa ko tëye sama loxo ba ma toogee ko seetaan. waaw pendant un moment carte claire na am déet. ok léegi François Hélène ñu gis ne viol bi bëri na torop te jigéen ñu jigéen ñu bëri ñu ne violal nit ku ne jaar na fi ku ne mais lan moo tax François Hélène taamu ci ki nga xam ne moom mooy. Adji Sarr maanaam yeneen jigéen yi lu tax François Hélène di leen mais Adji Sarr la taamu pour défendre. beneen question bi ñoo ñaar laay boole ndax mu gaaw beneen question bi mooy sa diggante ak Gabrielle Kane lan moo tax ngeen am problème ak lu waral problème bi tontul ci première bi après deuxième bi ñu continuer. waaw première question bi mooy man nekkuma woon nekkuma woon koo xam ne damay taxaw officiellement structuré défense aux droits des femmes maanaam Adji Sarr bu fekkoon ne association yi nekk Sénégal di défendre les droits des femmes wala ministère de la femme jamono jooju jëloon na Adji Sarr en man doo leen ma dégg ci dossier Adji wala da ngeen di may dégg nii rek de temps en won ko nii jàppale naa la mais ñëpp dañ koo bàyyi. tout le monde l'a abandonné dafa am na mun am nekkoon en danger mu am li ñuy wax déni de justice maanaam ñëpp beddi ko ba nga xam ne justice ci boppam du ko am loolu la ñu ragaloon parce que dëkk dëkk bi dafa jaxasoo woon ay saay-saay ñoo ñëw jaxasoo këppatal dëkk bi ba nga xam ni bu ñuy réagirul woon en masse citoyens yi taxaw yëngatu wane ni fippu kon dëkk bi tey leneen lay doon naka su dul noonu na xew Sénégal donc Adji Sarr du ni dama ko singale moom taamu ko c'est parce que moom kenn da koo bëggut a défendre man kañu bëggut a défendre laa défendre ñeneen ñi dañoo am ñu défendre leen ñeneen ñi dañoo am justice déglu leen yan kaa fi am Adama Badiane ex mais y a des dix mille Sonko yëpp génn taxaw jàppale ko man nekkuma di wutum buzz ci wutum buzz soxla ma buzz am naa buzz 2012 donc léegi duma fa wax. que man je ne hurle pas avec les ou loup je ne je ne hurle pas avec loup c'est pas parce que bokk yëpp génn nañ di yuuxu que damay daal ne kon yuuxu jaadu damay toog ba gis lu jar may yuuxu te Adji Sarr dafa amoon lu jar may yuuxu parce que dafa dem laaj ndimbal kenn nangu ko dimbale ñu beddi ko def ko mu mel ni koo xam ne bokkul ci Sénégal. ok ma ni loolu du fi amee jaay du fi amee. léegi sa taxaw bu fekkee ne. samay alal laa ciy def sax dina ko xeexal ba mu am droit à un procès comme tout le monde. ok léegi sa problème ak ki nga xam ne moom mooy Gabriel Kane. kooku aw mag moom problème parce que xamuma ko du sama collègue du sama mbokk. sekk ñu ndax gis nañ ne yéen ñaar da ngay def xëccoo da ngay def xëccoo ku ne day wane ne gën a jege. maa gën a xam wóor man gay te Adji Sarr mën na la ko confirmer xëccoowuma ko. Adji Sarr dama ko doon ñàkk moytu ñu yàqal ko yàqal ko dossier am te la ko waxoon yëpp am na xam nga yow Adamo lu ma li nga nekk sama doom nekk samay doom joxuma sa numéro. waaw joxuma dama doon def su ma la wooyee téléphone bi woo Adji Sarr ci beneen téléphone bi. loolu la doon moytu. léegi yow. gis nga ba balaa ba ngeen bokkee ba ngeen jaxasoo gis nga conséquences yi moo xam jamono yële. waaw tey gis démb. démb rek li conséquence li may li may moytu amaat na da ngeen tàng yéen ñëpp da ngeen tàng ay xale li xale ngeen aadina yenu ngeen aadina fi mu toll nii defe ngeen ni kuñ la kuñu ci xuri ah dangaa war a jóg daal di armé loolu laa doon moytu bëgg ngeen am vous vous aimez à distance. ngeen am relation à distance pour éviter ngeen di am ay. ay bo ay xam nga doorante bopp quoi loolu laa doon éviter. ok maintenant Gabriel. Gabriel waaw dama bëgguma di tudd di tudd nit. man ak moom xamante bokkuñu liggéey man daf ma fekk ma liggéey xeexu Adji Sarr xeexu Adji Sarr xam nga kañ lañ kañ la taxaw kañ lañ ko samp ba ñu demee Njërnda. waaw moom Sénégalais ne Adji Sarr amul doom. ko doom ya ñu ko doon ji ñi ko Babacar Touré. dafa amul doom wane ni que ah yow kon mën nañoo jàpp ne Gabriel kat dalay mën nañoo jàpp ne Gabriel kat dalay yàqal ci Adji Sarr wala. waaw loolu loolu moom moom noonu la gisee taxawaayam ci Adji Sarr mooy ni day bedd ñëpp Adji day bàyyi ñëpp toog moom kese mu tëye ko di ko wax fan ngay xool fan ngay dox surtout nag Françoise moom bu ko jege bu ko bu ko xool bu waxat moom. ah koy Gabriel di am na yoo loolu si la parce que Gabriel dafa Gabriel dafa reculer gis naa ne Gabriel Mollah la dugganteel affaire yooyu noonu Mollah Morgun lay waxal léegi di ko jox ay information pour bu koy door ci kaw yéen ngeen jege Adji Sarr te yéen a bokkoon combat bi ngeen xuloo yow xam nga ni man maa la ko présenté. waaw man Françoise am ku xamul ci réseau yi te ku ma ci bëggoon waxal tey damay wax yow 24 heures sur 24 ndax réseau yi bokk naa ci ñu ko sanc képp ku fii live tey mës nga seetaan Françoise Hélène Gaye mu nekk di live loolu ay 2015 2017 la donc bu ma nekkee ci réseau yi mam ay ñi nga xam ne ay ndoomu euh, kii la ñu Macky Sall la ñu ay ndoomu Adji Sarr la ñu du si du ni damaa bon dangay xam sa bopp xam kan nga war a àndal boo nekkee dans un combat on ne peut pas mélanger les torchons et les le linge de corps mënoo nga ni ku ne di nga di nga dugganteeg moom xam mel ni yow dangaa am benn course boo xam ne boo dawul léegi xamanteeg ñëpp dugg fa nga dugg doo aadina ah, xoolal li nga war a am gis nga sàcc bi ni ko sama benn xarit di wax sàcc bi dafa gëma di yàlla sax ne la muy dem di jël alalam la wërsëgam la. vaccine bu bi mu ko jëlee moo ne bu ko jëlee moo ñaaw nit ki sa wërsëg ngay lekk bu ala kuli ali yéegal a ki wàcc périer julli kataar du ne nga def ko xoolal li nga xam ne doo lekk lu weesu luy sa wërsëg donc na rafet man looloo tax ba ba ba xeex bi ba mu dugg man ba ma nekkee carrément ci côté président Macky Sall ñëpp laa bloqué. waaw léegi question bi ndax aji Sarr ndax Adji ok léegi question bi ndax Adji Sarr Euh, dañ ko daan jox xaalis chaque mois te xaalis bi ci loxo Gabriel kat daan jaar waaw wala déet. dégg naa coow loolu amel na aji saa xaalis def naa dina ko ko fay. wax na ne dina ko ko fay. ok moom moo yore xaalis ok léegi. Euh, demande bi ma lay laajaat mooy tribunal dem nga fa démb xam nga la fa xew ci mbirum laalante beeg ñamante bi léegi ñu bëgg nga ñëw ci la xew ca turbinal ba. maanaam euh, euh, kii docteur Touré li mu wax Alpha Seydi Gaye Aïssata Ba maanaam tribunal ba nu mu demee nan la tribunal bi demee exactement ci wax ji. dama yàlla baal waaye tukk sa ba na reer. waaw tukk na sañ ba reer. maanaam c'est le procès du siècle. li ma métti mooy que l'État sénégalais n'a pas suivi conseil dama leen ne woon na nekk public. koñu Sénégal bu ne ñu teg fa. ay micro ak grand écran s'il le faut ñuy retransmettre procès boobu. Ah. te bu ñu ko defoon mënoon nañu sax jaay les droits ci télé internationale yi ça aurait fait des millions de dollars yoo xam ne day dugg ci keesu ministère de la justice et je les conseille que à l'avenir loolu ñu def ko parce que dafa am am na États-Unis procès yu mag yi dañ leen di filmer gars yi jaay ko gars yi di ko teg seeni chaîne YouTube ak seeni télé c'est de l'argent et la justice sénégalaise xaalis boobu mën na leen servir ñu régler yenn problème yi ne serait-ce que pour nettoyer pour régler les locaux les toilettes yi nekk foofu ñu remettre ko à niveau ñu defar foofu muy am service de nettoyage bi loolu xaalis boobu di leen fay à tout moment que ñu mettre les ñu mettre leen à kii donc utiliser les les procès pour faire de l'argent parce que procès bii ma gis démb moo gën a bu ñu ko defoon film tey ça va le box box office américain dina day exploser maa toog dégg xale bi di wax Adji Raby Sarr di nettali Ousmane ko li mu ko doon def na muy wax na wax yoo xam ne sax ñemewu ma ko reproduire. non jaaral ci kat yi rek waxal mu leer taabati na écran bi. xam nga teereer la wolof daf ba muy expliquer naka Ousmane Sonko violé dafa wax ni dafa jël doole huile bi sotti ko sama bajo bi. ci lëf li nga baatu séeréer bi dafa diis. waaw lëf. waaw. waaw sama bajo bi la wax. waaw waaw ñun dégg ñu wolof. data mooy bajo rek dafa am ay façon am na data am na bajo am na njuupa am na palaatu sandis lu ne mën koo wax mais yow nga wax dafa jël huile bi ko ci bajo astar bi ñu dem. doom ko ko may waaw. acca bajo bi tax Ousmane Sonko duggul pale il faut que man ak il faut il faut mu jaaxal Sénégal. acca ndax xale boobu moom daa ngi am bajo bu garaaw la ndax lu yëpp bajo booboo tax Ousmane Sonko saa yu xëyee fajal. daal di euh, yooru dem fekk jóg fekk ji daal ngeen ba. ci ñëwal ci bajo bi ba mu sottee urne bi ci bajo bi. waaw ci la ko violé ci la yegg ci kawam. Hmm. daal di pare nag ne ko loolu lii boo ko waxee xam nga yow xam naa sa tur xam naa fi nga dëkk ni ma def ko xam sa tur xam sa xam fi nga dëkk retrouver la éliminer samay nit dañ lay retrouver te bu boobaa xoolal dañ lay éliminer du ma hésité j'hésiterai pas à tuer. yaa ngi dégg. donc gis nga ci plateau de foofu noonu du premier première seconde procès bi ba fin bi musiba inaaru laay laa dégg damaa déglu déglu déglu ba dama bëggoon euh, wàcc ci suufu chaise bi ma nekk làkkatu fa ndax gàcce pour Ousmane Sonko pour ay jabaram. moom ay mbokkam ay militant dañoo rus ba dañoo yolleeku benn par benn balaa procès bi di jeex salle bi dafa vide waa kër Ousmane Sonko yi dañoo daw gis nga ñun ba ñuy def suñu point de presse ci biti la ñu taxaw dégg nga kenn yuuxuñu amatul woon waa kër Sonko ba def naa ñaari nit moo fa des. ok ñëpp daw léegi li kaddu yi nga xam ni ñëpp ni day Khady yëkkati na ko Aïssata Ba yëkkati ko. Euh, kii docteur kii Alfousseynou Gaye yëkkati ko ak euh, capitaine Touré man nga ñoo ñëwal ci yooyu ci kàddu yi lan la fa doon exactement kenn ku nekk si ñoom. kaddu yi daal ñaar ñi ci gën a choqué euh, ñeent ñi nga tudd ñoo togaxal Ousmane Sonko ba mu wee ba mu dee dañoo ko togaxal parce que dañoo gëmloo woon Ousmane Sonko dëgër nañu fit. ba ñu te am nañu xel mais ba ñu yegsee ndekete yoo groupe Ngaaka équipe bu Ngaaka la Ousmane Sonko teg mu def ko équipe de départ maanaam booy am booy match football. gars yi ñu écran bi ñu bi gars yi un million zeb directement ñu tàppate écran bi live baa ngi xaw a tëb nañ tàppate écran bi maa la wax lii Adamo gis nga ailier droit bi mooy docteur Gaye moo ñëw rajaxe kaas yi. waaw yàq xolal daal di nettali.

li ma fekkee laa lay nettali te damay njëkkee ci docteur Guèye parce que mooy mooy ndeyu mbind ji moom ak capitaine Touré. moom dafa waxoon moom la procès verbal bi mu def la nit ñi jël di wër àddina si naan docteur bi certificat médical bi setal na Ousmane Sonko ah certificat médical bi dafa dugal Ousmane Sonko certificat médical bi mooy kayit bi nga xam ne docteur Guèye moo ko bind te moo dugal Ousmane Sonko ci kaso bi. Ousmane Sonko ku dugg ci kaso la ba pare di doxantu ci bett bi la parce que docteur Gaye ba ñu décrypté ci am bi waa ji ko ne yow dangaa wax ni am na prélèvement yoo def ci Adji Sarr mu ne ko waaw ba mu ñëwee def naa ci moom ay prélèvement yóbbu ko laboratoire mu ne ko ba laboratoire ba mu jógee ci laboratoire bi lan la laboratoire bi wax mu ne laboratoire bi dafa ne am na ay maniw yuy dund am na maniw ci biir maniw bi fekk nañ fa spermatozoïde vivant non waxul spermatozoïde vivant mais kii bi ne ko euh, juge bi ne ko euh, avocat bi ne ko ki sant Thiam ku oh, ay sax avocat ne ko mais spermatozoïde fan lay dundee fan la ñuy fekk spermatozoïde normalement. non sécrétion la sécrétion vaginale. non non non non ah. sécrétion vaginale toog naa ba génn. mais bien sûr que boo koy fekk spermatozoïde dina dina ànd ak ay ndox yi nekk ci vagin wu jigéen mu ne ko léegi yow c'est que euh, spermatozoïde ci lan lay dund ci ban milieu lay dund mu ne ko dans le sperme mu ne ko kon génne nga sperme ci kanamu Adji Sarr mu ne ko waaw mu ne ko kon je n'ai plus d'autres questions comme génne nga sperme ci kanamu Adji Sarr mooy ni amatuma question mm-hmm. léegi lan la ñu ni kon après xam nga lan des xam nga wax nañu ni que Adji man moo nekkoon ci kanamam moom la ñu fekk ci kanamam léegi question bi moo doon kan moo fa nekkoon kan moo fa war a bàyyi man yoom bas boobu li dimbali Adji mooy ka nga xam ne dafa doon jéem a toroxaal Adji Sarr lor ko yàq dossier muy Aïssatou Ba parce que moo daw ne ne ak moom ak Ndeye Khady ñoo defal dossier Adji Sarr ndax nee naa leen xarit bu xarit bu dof doon bu sa ko gën parce que Aïssata Ba defe na ni day jaxase Adji Sarr ak àddina si mu daal di dendee xat yi dégg naa Adji di waxtaan ak nit kooku ne ko ndax daanu na ndax daanu na Adji Sarr waaw daanu na donc ci gannaaw woote boobu ñooñu si la ñu jël si Adji muy Seydi Ahmed Mbaye ak docteur bi nga xam ne uh-huh. ni que Adji Sarr dégg nañ ko muy wax ne daanu na Aïssata Ba nee na dégg na Adji Sarr di ne daanu na ñu ne leen kan moo mujj googu ba fa ba donc ba ñu passé song ba pare Adji Sarr des na fa wala mu ne Adji Sarr dafa dem Adji Sarr nekkatul ci kër gi ah, Ousmane Sonko la maase fekk man yu ci biir. Euh, data euh, data Adji Sarr data bi waaw. waaw non dañuy rafetal wax. donc rafet rafet ba dégg naa ay kàddu yu ñaaw lañ wax. dañ ko wax ci digg bi yax ba ci nekkoon anamu kenn moo fa nekkoon. di Ousmane Sonko man yu ba fa nekk Ousmane Sonko donc moo ko fa ba cela se déduit. Euh. ok léegi koy yi nga xamante si nii moom nee na euh, Ousmane Sonko da ko juutal ci taabal bi katt ko ci tuun ba bi tax day ñëwal ci loolu. connexion bi dafa demoon. nee na Ousmane juutal ci taabal ji katt ko rocc koy bi mu tax day ñëwal ci loolu ci tuun la ko doon katte nee na. François. François Hélène. allo. waaw yaa may dégg. wax bi xam nga. Adamo nga coow li lan la. waaw. bés boobu. bés boobu. Hmm. waaw. yow laay déglu de. François. allo. connexion moo dawoon répéter question bi. Adji Sarr nee na Sonko da ko doon katt ci tuun rocc koy bi mu taq day ci biir tribunal bi ñëwal ci loolu noonu la ko waxee ci biir tribunal bi wala parce que kàddu yi noonu la ko waxee parce que noonu la amee te il fallait moom foofu dafay wax dëgg donc noonu la ko waxee expliquer que Ousmane Sonko da ko ba mu sëyeeg moom ci gannaaw dafa dafa dafa dafa maanaam dafa génne awraam awra bi takk ay neefere. neefere waaw loolu moom wax na ko fa. ok mais vidéo yi ñuy wax ne am na ak audio yi. pourquoi pas taal ñu écran plan projet teg ko Sénégalais yi teg ne vidéo yaa ngi nii Ousmane Sonko gi kattante ak Adji Sarr loolu moom dama la koy laaj yow pourquoi maanaam juste bi bañ loolu. xam nga Adji Sarr parce que juge bi day défendre d' abord lu tax ñu droit am lu tax ñuy dem ci yoon c' est pour défendre la dignité d' une personne c' est pour défendre pour permettre doomu aadama nga mën a dund ci condition yi gën ci ci ci dund façon dund bi nga mën a am Adji Sarr bu ñu jëlee tey vidéo yooyu teg ko dina wane Sonko mais dina wane Adji Sarr aji Sarr jigéen la te defe naa ni man sama bopp d' ma pour que ñu ñu ñu ñu wane ñu wane Adji Sarr mu nekk ci ay taatu neen góow di yegg ci kawam bu doon sama sago duñ ko def aw ma ci nag benn aw ci benn capacité d'intervention mais bu doon sama sago daal duñu topp seen duñu topp euh, duñu fayonteeg Ousmane Sonko parce que tamit yàlla moo ñu sant ñuy ñuy ñuy jëlale daal. mais vidéo yi vidéo yi ak audio yi comme ni nga ko yi ak audio yi comme ni nga ko waxee moom lu am la. lu am la man de gëm naa ne am na parce que am na maa ngi fàttaliku. bés bu may bés bu may waxtaan ak Adji fekk ñu koy saaga mu ne ko na nga wax ni euh, caga bi moo xam ne caga boobu mooy ñëw këpp seen yalwaan ci biir jacuzzi bi nga ni ko Ousmane ko bés boobu nga demoon aéroport dem jëli xaalis bi te nga delsi dugg ci jacuzzi bi gis benn bouton daal di ma ndax lii de day nuroo caméra ma ni la ah kër gi amul caméra mu ne ko naa wax Ousmane Sonko loolu caméra la woon yaa ngi dégg donc Ousmane ko ci boppam moo la gën a xam ne que Adji Sarr am na ay vidéo ok ok léegi juge bi lan moo tax maanaam vidéo yi ak audio yi jëluñ ñu ko jox ko juge bi juge bi teg ko parce que gis naa fa benn écran projet vidéo gis na ko juge bi jël na vidéo yi gis na ko waaye juge bi moo d'accord pour ñu teg ko juge bi d'accord ñu teg ko xanaa juge bi moom soxalul ay preuve ah juge bi am na preuve yu doy sax jarutul preuve preuve vidéo yi c' est complément c' est juste un complément d' parce que le juge a déjà toutes les preuves dont il a besoin pour se faire une opinion parce que bul fàtte ne ce procès a duré presque deux ans presque deux ans donc pour te ñii c' est des yoo xam ne dañ leen formé jàngal leen naka la ñuy àttee ay doomu aadama donc na sa xel daal la bi am na ñun kay ñun ñoo dañ ko ba bëgg a gis ay xàpp Ousmane Sonko ak ay bagage Ousmane Sonko ba mun ko capturer ba mun ko di ko wane mais juge xam na gis na te ne moom moo wax maître El Hadj Diouf non non loolu buñ ko def. te man xam nga man xam man 100 pour cent Macky Sall man 100 pour cent Macky Sall laa Macky rek laay jàppale. mais patriote yi pour ñu wan leen ne leen. ñun moom suñu wax day day day aji Adji xam nga. vidéo yi juste bi da ko waroon a jël branché ko ci écran plat bi teg ko parce que écran projecteur boobu noonu pour vidéo moo ko tax a jóg dara taxu koo jóg leneen du fa immeuble nekkul portefeuille nekkul dara vidéo moo ko tax a jóg ak ay preuve comme ko yor nañ ko ci clé USB bi dañ ko waroon a branché Sénégal gi yëpp gis ko bu ko defee max bi tas wax ji gën a fee gën a leer leer na ba pare moom mu gën a leer rek. ñii ko topp dana yàq euh, da ngeen di fàtt dañoo dañoo fàttaliku Adji Sarr dina nekk yaayu doomu. dina am doomu aadama yoo xam ne Adji Sarr moo nekk seen yaay ëllëg mm-hmm. dina am na doomu aadama yoo xam ne Adji Sarr seen bàjjen la dégg dégg ngeen Ousmane Sonko am na ñoo xam ne malgré lu mu bon ak lu mu dëng seen papa la ah. ñooñu xale yooyu dinañu am ay papa ay doom suba te xale yooyu dinañu xëy kon di gis seen baal leen ma ci waxin wi xuugu papa yi di lang ci jacuzzi bi te loolu wax dëgg yàlla ak lu ma contre torop li mu fa wuti ak lu mu fa des bëgguma ay njabootam loolu ñu war a dund ak lu mel noonu. non Adji Sarr moom Adji Sarr moom Adji Sarr moom Sonko ma Adji Sarr moom gars yi Sonko katt na ko loolu leer na man kay li may xa wax mooy ndax vidéo am na wala audio mais Sonko ko katt moom kenn waxatu ko Sonko moo katt Adji Sarr loolu leer na nañ wax waxal yegg na ci moom rek waaw waxal na ci moom katt na ko yegg na ci <laughs> waaw waaw léegi xam nga xam nga problème bi mooy ci ci viol en matière de viol xam nga la ndax am na pénétration est-ce que ndax nit ki nga xam ni moom la ñu pénétré est-ce que d'accord woon na ñu pénétré ko loolu ñaar yooyu la juge luy pénétré xam est-ce que pénétration am na defe naa ne gis nañu ni pénétration am na parce que man yu am na man yu moom pénétration moom man yu moom pénétration moo ko fay moo ko fay moo ko fay bàyyi léegi beneen bi mooy ndax Adji Sarr d'accord woon na wala d'accord woon Adji Sarr nee na d'accord maintenant c'est avec les faisceaux de preuves yi nga xam ne Adji Sarr teg na ko ak yi nga xam ne euh, le le le maître des poursuites le procureur bi euh, gëstu na ko xool na ko ci lay juge bi di décider euh, en toute impartialité te defe naa ni bu ñu xoolee profil profilu Ousmane Sonko c'est pas la première fois ñu koy jàpp ci ay mbiru. affaire jigéen muy tëddeeg ay jigéen ci ci ci ci ci corniche bi pourtant le président Macky Sall dafa waaj dafa dafa kii ba daf ko xeexal chaque fois ay nitam ñëw di indi daan gis ne jàpp nañ ko ci corniche bi day ne ñun suñu yoon nekku ci ci ku nekk li ngay def sa biir oto wala li ngay def sa biir kër ñun politique yooyu du ñu xeexee noonu. ok du politique noonu. ok léegi kooku dina def loolu boo ba élection amee mu bàyyi léegi ba kañ. ñu bëgg a wax ni léegi dafa bàyyi ba élection amul dara xewul muy doog a dem di wuti benn xale boo xam ne day doog a yegg si Dakar wala fam setul xamul ñu bëri Dakar amul ko koy aar amul ku koy xeexal mu koy doog a dénk dossier ne ko éliminer ma Ousmane Sonko loolu wax ban waxu dof la. ok léegi fanaa wax ne oto moo moo jël. waaw Adji Sarr nee na moom xamul Mamour Diallo. Mm-hmm. te Mamour Diallo euh, euh, Mamour Diallo Mamour Diallo moom nee na xam na aj kii euh, xam na aji Sarr. eeral gis nga Mamour Diallo xam nga lan. da koy jàppale wala. mooy man mii France Adamo. waaw xam nga li ci boole Mamour Diallo. waaw mooy li la ci boole yow Adamo. mooy li ma ci boole man Françoise di leen gay mooy li ci boole ñëpp ñu nekk bi codage parce que dafa nekk loo xam ne dañuy gis ku am doole di xeexal ku new doole ñu jàpp ne ku néew doole ki na ñu jàppale ko dafa tombé nag Mamour Diallo nekk noonam depuis des années Adamo boo fekkee sa noon di xeex sa noon di xeex ak benn nit da dem jàppale nit nañu waxante dëgg. waaw da koo jàppale wutu jàppale ko yéen amee comme man ni ma koy jàppalee boo amee benn cent mille nga may ko boo amee benn vingt mille may ko boo fekkee mu am problème te fekk nga yow loo ko koy fajalee nga nga réglé ko su problème la. ok donc y a rien. léegi enregistrement am si. Euh, président Macky na. président Macky Sall waaw ma wax ci président Macky Sall. moo yow yaa ko njëkk a yëg di sax ndax yow yaa ngi ci réseau yi vingt quatre sur vingt quatre yow yaa njëkk a yëg président Sall. que Ousmane Sonko accusé nañ ko viol man maa njëkk a yëg président Macky Sall que Ousmane Sonko accusé nañ ko viol. non li yoonu Macky Sall newu ci Macky Sall yoonam newu ci ay viol ak yooyu Macky defal ndànk ma ñëw Macky Sall c'est un homme Sall c'est le président de tous les Sénégalais Macky Sall dafa am la am fayda Macky Sall nekkul ci ay jaaxaat yoonum newul ci ay katt na ko katt ko Macky moom liggéey la xam ak defar réew mi waaw kay léegi enregistrement AMC Niass yi ah nan euh, ñëw foofu ndax aji ne enregistrement yi da doon foofu ak MC Niass. Adamo am na point am na am bu am solo bu ma la bëgg a jox. waaw. Adamo. waaw. yaa may dégg. yow rek laay déglu. xam nga ñoom waa Kër Sonko. dañoo dañoo dañoo saay saay mais musuñu xam nga dañ la wax ni que docteur bi ñoom ñoo génn di fen loolu docteur bi li mu wax ci dafa ne fekk na sperme ci Adji Sarr. waaye léegi koo xam ne nee na ñoom nee nañu sécrétion vaginale maanaam mooy ndox mi nekk ci biir maniwu euh, kii euh, kii wu jigéen. Euh. léegi loolu est ce na ëmbal nit Adji ba mu demee ci docteur bi dafa jox pilule bi ñuy wax Norlevo mooy ni boo amee rapport boo xam ni. boo sëyi boo boo sëyee boo sëyee te fekk nga rental ni boo mun nga cee ëw euh, jëlee ëmb dañu da nga koy jël pour que ëllëg nga koy jël bu fekkee ne amoo woon protection da nga koy jël ëllëg sa pour que nga bañ a ëmb. mais Adji Sarr tamit ëmb boobu lu tax wax ko ay ay non taxawal taxawal expliqué loolu dafa lii dafa important. waaw docteur bi moo bindal Adji Sarr Norlevo mooy pilule du lendemain naka ngay bindalee pilule du lendemain koo xam ne fekkoo ci biiram. spermato sperme ak ay ay spermatozoïdes donc loolu lii rek day battre en brèche thèse bi nga xam ne waa kër Ousmane Sonko fa la ñu bëgg a jafandoo ne Adji Sarr ay fekk ñu dara ci biiram fekk ñu sperme ci biiram. ok depuis kañ la ñuy jox ni pilule du lendemain bu fekkee ni sperme nekkul sa biir awra. ok léegi leer na ça n'a pas de sens et trop limité pour pouvoir battre tous les Sénégalais. léegi François euh, ñu ñëw ci ëmb Adji Sarr bi ëmb bi nga xam ne nii Adji Sarr nee woon da koo ëmb te ëmb boobu noonu man def naa ci vidéo nee naa ñi ci juddu woon. te bis boobu ndax ëmb buy am di mois. dafa nekkoon dans une situation. waaw Adamo Adji Sarr dafa nekkoon li nga xam ne moom la ñuy wax euh, actuellement ci àddina bi esclavage moderne. xam nga luy esclavage moderne. xaw ma ko kon nit koo xam ne day liggéey dañ koy dugal ci benn bërëb tëj ko fa mu war a liggéey vingt quatre heures sur vingt quatre di liggéey huit heures ba minuit te du am maanaam duñ ko ko fay amul droit génn waxtu bu ko neexee amul droit di dem fu ko neex dañuy réglementer demam ak dikkam. Donc, elle était dans une situation d'esclavage sexuel et d'esclavage moderne parce que fay bañ ko dafa doon liggéey heure yoo kenn du ko ko fay du ñu respecter réglementation en, en vigueur et les réglementations de l'Organisation internationale de la femme ak droit de l'homme yi lu ñu wax ci mbiru liggéey donc Ndeye Khady maintenez Adji Sarr dans les lions liens moom nit ku bon la parce que Ndeye Khady moom. xale bi ba muy dem. ku bon la parce que gis nga jigéen foofu lay ñëw. gis nga Ndeye Khady mu mun a daw. a rëcc Ndeye Khady. waaw pour mun a daw dem wut ndimbal pour que li muy dund ak Ousmane Sonko mun a dagg. léegi naa la posé waat question mais dag may may ma wax fii tuuti gis nga Ndeye euh, Khady gars yi may seetaan Ndeye Khady Ndiaye. Ousmane Sonko ak Adji Sarr lu nu bon bon bon bon Ndeye Khady leen gën a bon Ndeye Khady moo ubbi benn bërëb boo xam ne nii day cagatuloo ay xari xam nga dañ leen fay dugg forote yi du muy demee da ngay ñëw ñu sotti la huile di làmbu say koy ñu sax sa awra ba nga daanu dan lay katt ci tuut di la katt ci poqotaat di la katt ci bakkan di la katt ci data day xadi njaay lu ko gën a bon ci àdduna bi yàlla sàkk ko bërëbu caga la ubbi di ndàmpaloo massage kenn amu ci diplôme day xadi njaay du ko baax lépp moom la. waaw kay lépp moom la. léegi yow ñëwal ma ci audio. lépp moom la audio im si ñas yi ndax aji nee na doon foo. ma wax lan ci ban. audio MC Niass ak Adji Sarr. audio xam nga li loolu ba tey moo taxoon ma ko doon ñàkk Adji Sarr dañ koo tëj pendant euh, Ousmane ko da koo tëj ci ab bërëb pendant presque deux ans parce que. ay nitam ñoo ko menacé te Ousmane Sonko joxewul ndigal pour wax leen ni nañ ko bàyyi muy dox soxlaam di def lu ko neex lu ko saf parce que citoyen la ndaw la am na droit à une vie da ko bàyyi di tiitowoo li tax euh, doole bu bëri bi mu am ci Sénégal bi xale yi di gën a rakkaaju di dem di gën a teppeelu di gën a toj kaas ak rajaxe léegi euh, ci jamono jamono ji mu nu mu tudd euh, excuse-moi je suis je suis très fatiguée maa ngi def sax affaire wu Ousmane Sonko. maanaam yéen yi ngeen da ngeen di wax di mel ne li di wax da ngeen koo xamatul loolu rek kay seen problème da ngay da ngay yow man lu di wax di kii waaw. Adamo Adamo déglu ma. baax na. parce que day Xadi Njaay laa bëggoon wax. mais li ma sàmm que danga ma danga ma yóbbu. danga ma yóbbu ci keneen. jaww day donc dafa dugal xale yi dans des conditions yoo xam ni de d'esclavage moderne. Hmm. Adji Sarr donc amul woon capacité di dama di ñëw donc ba muy wax grossesse c'est pour que mu mun a rëcc dem boo gisee sat Ba ba Adji Sarr dawee Adji Sarr dafa yëkkati li mu doon denc. pour di dimbali ay waajuram jox ko ci cent mille francs ne ko damaa bëgg xaalis bi nga jël ko te nga daw fii baaxul léegi ba mu ko ko waxee Aysata Ba au lieu mu daw moom ñibbi mu delluwaat dem toog ci Ndeye Khady Ndiaye sa xarit ba nga xam ne danga doon ànd ak moom ba ngeen nekkee xarit ba xale ba xale ba léegi nga dal di ko taayee pour nit koo xam ne ba nga ko xamee matul semaine noonu la fa demee. ok donc loolu mooy kaw Aysata Ba. léegi nag li ma bëgg François dañ François yaa ngi koy dégg li ma bëgg nga ñëwal ma ci ah. mooy MC audio euh, euh, ak Adji Sarr audio yi ci boppam nan la demee ndax Adji nee da doon foo audio yooyu laa bëgg nga ñëwal ma ci man ci audio yi loolu laa bëgg a dégg. waaw audio yi MC dafa dafa dafa nax aji Sarr. Hmm. parce que MC dafa gisoon ci aji Sarr yoon bu mu mun a amee xaalis. mu jël Adji Sarr commencé dugal ci boppam man jamono yañ mayoo présenté MC par téléphone je n'ai jamais demandé musuma demandé rencontre MC jour boobu ñoo waroon a gisante ak man ba ma ñëwee woon noonu dama waroon a MC dafa waroon a nekk mais temps yu taw yu jamono yooyu dafay harcelé Adji di ko wax ne ah lii il faut que mu amal la njëriñ li mën nga ci am xaalis mën nga def lii mën nga bu ko defee après mën nga sax am kayit Amérique mën naa la takk yóbbu la Amérique nga nekk fa dinaa la jubóoleeg Sénégalais yi dinaa la jubóoleeg di nga am doom boo amee doom maag yow bu ñu amee doom nga tuddee ko bàyyi chantage sur le plan affectif maanaam la jënd xale bi. ba mhm. xale bi nga xam ni da koo wóolu lu mu ko defloo mu defloo ko ko. aji wax na leen ni que liste bi dafa ko jox liste ne ko teyel ma. mu waat ko benn jour ne ko par exemple ñamaleen liste ba ma la joxoon limal ma tuur yi ma la joxoon aji lim parce que da ko wóolu sëriñam la liste boobu la ñu naan am na waa seize personnes yu bokk APR yoo xam ne Adji Sarr dafa dañoo tëddi Adji Sarr ay duuli neen beneen bi mooy Mamour Diallo parce que Adji Sarr mooy comme man ni may wooyee Adji Sarr xam nga léegi ba ma ñaata ñëw si émission maa koy woon naan ko dimbale ma ngir yàlla bul wax téléphone bul kenn bul dugg ci émission bul tontu bul saaga bul fayu saaga bul fayu kenn bàyyi la ñu mais loolu buñ Mamour Diallo bu ko waxoon euh, c'est-à-dire contexte bi may wax ci lii laa wax Mamour Diallo ci lan la doon wax mu muñal métti na dinañ la jàppale mooy li may wax aji saa dinañ la jàppale te xamuma Macky Sall xamuma jabaru Macky Sall xamuma Mamour Diallo xamuma Joow Jaañ dama déggante naa moom déggante naa ak président ba mu ñëwee New York taxaw nañu waxtaan tuuti ci Sénégal ak ci li ñuy liggéey ak ni ma gis fi ma toll nii loolu. Mamou dafa ñëw Adji Sarr comme télé MC Niass da koy wax ne dafay attention ñii liñ la duñu la jàppale te lii ngay def ni ñoom lay njëriñ wala amal na leen njëriñ wala dañ la war a jàppale di ko wax ay wax yoo xam ni ba ji jàpp ni que daf ko war a jox ay preuve que ñii dinañ ko dimbale que am na ñoo xam ne ay bonne volonté la ñëw te danañ ko bëgg a jàpp bëgg nañ ko jàppale te yàlla tax. ok mais ci biir wax boobu. ci biir wax boobu enregistrement boobu da ko jëloon pour que papam bañ a defee ni moom mu ngi tëdd ci mbedd bi wala amul lu muy lekk wala mu ngi euh, elle est dans une situation boo xam ni bakkanam mun nañ ko jël mais loolu lañu la la MC Niass jël joxe ko di gëmloo nit ñi que Mamour Diallo da koy wax ni dafa euh, loo xam ne dafa jëm ci corruption alors que c'est faux c'est archi faux et MC Niass le la il a essayé mu enregistré loolu. ok ay retours yi léegi pour mu partage loo leen kenn ko ci fay cent franc. ok léegi François Hélène ko ko ci. ok François Hélène léegi gis nañ ne verdict bi daanu na yow lan nga man a xaar yow pour verdict lan nga yaakaar looy xaar yow pour verdict maanaam si gis-gisu bopp yow looy xaar ci verdict loo yaakaar ne verdict bi. noonu lay demee xaar ci verdict bi mooy Adji Sarr mooy que le juge. xam ne Adji Sarr xale boo xam ne la à jamais. elle va porter les stigmates de, cette, de, ce, viol déjà à jamais elle va porter les stigmates du fait que dañ koo violé ba pare ka moo ko violé j'étais ko en pâture à des milliers de militants yu koy saaga matin midi soir matin midi soir di ko saaga di ko toogaxal di ko def ay ñaawteef yoo xam ni ba ci ay sët sëtaatam dinañu dund conséquences yi donc le préjudice que Adji Sarr a subi que le juge répare elle Adji Sarr réparé préjudice boobu tooñ bañ ko tooñ ñaawteef yañ ko def na ko juge bi may jox ndàmpaay boo xam ni dina mën a defaraat àddinaam au moins. ok mais est-ce que est-ce que Adji mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi maanaam am na lu muy réalisé maanaam lu muy xalaat tey jii comme tey jii bu verdict bi lu yóbbu kii moom. Euh, François sa connexion bi dem na de sa connexion bi dem na woowaat ma après ok léegi Sarata euh, Sarata waaw waaw yow tamit doon ànd woon nga li ki nga xamante ni moom mooy Adji Sarr at woon nga ko ci nga xam ne moom mooy àttem euh, kattante ma léegi ñëwoon ci yow loo xalaat waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu ci li ngi nekk ci live bi yëpp di nuyu sénégalais yëpp di wax la président Macky Sall c'est le président de tous les sénégalais c'est le président de Ousmane Sonko di nuyu sama présidente bi Adji Raby Sarr mu sell mi léegi papu ne nuyu naa la kontaan naa ci invitation bi aussi parce que lépp dafa wala leer ndax gars yi am na ñoo xam ne dañoo génn wax leneen loo xam ne amu fa procès bi teg nañ Ndeye Khady teg capitaine teg docteur Alpha seeni gay daal di teg ki nga xamante ni que mooy docteur Alpha seeni Gaye teg mama Sarata Sarata sa vidéo bi ñu ne. non fi ma nekk moom mënu ma taal sama vidéo franchement. damaa simmee ko. waaw damaa simmee ko. ete kon jamono waaw léegi euh, Alpha Séni Gaye mu nga fa woon hmm, ki nga xamante ni que mooy mama mu nga fa woon capitaine Touré mu nga fa woon euh, madame Tall mu nga fa woon. beneen gel bi nga xamante ni que moo tax Ndeye Khady ak Adji Sarr xamante mu tudd Aïcha mu nga fa woon léegi bi procès bi commencé tuuti rek Adamo ah. avocat Ousmane Sonko yi ak avocat Adji Sarr ak avocat Ndeye yi ñoo nekkoon di échanger seeni biir maanaam avocat Ousmane Sonko ak avocat Ndeye Khady dañoo bëggoon ñu euh, ñu envoyé euh, procès bi beneen date avocat Adji Sarr yi bañ parce que la fois passée avocat Ousmane Sonko ñoo waxoon nañ renvoyé procès bi ñu renvoyé procès bi léegi dañoo waroon teg lu leer kitaab lu mooy lan moo tax ñu ne dañuy renvoyé procès bi ñoom ñu ne seen client jotul li nga xamante ni que mooy convocation bi léegi nekkate ñoom procureur jot nañ ay firndeel yu leer que ni Ousmane Sonko jot na li nga xamante ni que mooy convocation parce que. gars yi dem nañ si kër góor gi këram gisuñu ko bi ñu jógee si kër góor gi aussi dem nañ seize am bi nga xam ne mooy seize Pastef nekku fa ñu fexe jël convocation bi daal di koy yóbbu yóbbu Ziguinchor euh, loi bi nekk euh, kii police bi nekk Ziguinchor fexe nañ ba nga xamante ne ko Ousmane Sonko jot na convocation ndax procureur bu soxlaa euh, li mu soxla gars yi du lekk du ñu naan du ñu nelaw tant que indi luñ ko procureur noonu la yoon wax ñu defe ko nu yoon waxee léegi. bi ñu plaider plaider ba sonn euh, après avocat nday xadi wax tamit ne ñoom nañ leen may ba nday xadi am doom septembre comme nday xadi dafa ëmb nañ jël procès bi ñu yóbbu ko ba septembre bu nday xadi amee doom ma de mais nday xadi tamit mënul un an et demi yu ne mu ëmb moom lu koy ëmbal na ay biir na lu koy lu koy dóor espèce moo ko tey mel ni moom kese war a biir mel ni aji warul am jëkkër am doom di cuuraay gonga comme moom bëgg lu neex ak lu yomb ñëw taxaw ak biiram waaye loolu dawul suñu yaram léegi biñ leen dégloo ba ñu paree procureur ci boppam ñu jël décision procureur ne Ousmane Sonko ñoom yor nañ preuve yu leer naññ que ni Ousmane Sonko jot na li nga xamante ne que mooy convocation bi procureur daal di waxaat ne Ousmane Sonko moo toog àddina yëpp di ko déglu Sénégal yëpp di ko déglu mu ne moom dootul wuyuti gi justice su Sénégal moom pare na ci dem wuy gi justice su Sénégal parce que justice su Sénégal dañuy jalgati dootul dem wuy gi leen procureur nag ñëpp dégg nañ mu wax loolu kon ku mel noonu du leen tardeel ci projet. ci procès boo xam ne renvoyé nañ ko renvoyé ko avocat yi génne ay date seen biir date yi nag dañoo juum parce que tribunal lépp li nga xamante ne que procureur war na koo def def na ko liggéey lépp lu police war a def def na ko lépp lu gendarmerie war a def def na ko muy loi Sénégal nu mu tënkoo ñu judd ki yaru ci màgg si Ousmane Sonko moom moo jalgati yoon moo ko defee nu mu ko neexee léegi après après de dab de damay dégg Ousmane Sonko wax ci loolu moo tax may leeralal sénégalais que ni Ndeye Khady ci wàllu ñoo bañ ne duñu plaider bi ñu bañee ne ñu duñu repousser procès bi mooy lu Ousmane Sonko wax de mu ne dañoo bañal day xadi ay avocat c'est pas vrai Ousmane Sonko waxul dëgg day fen ay avocat Ndeye Khady ci boppam ñoo désisté comme que dañoo ñaar renvoi may ñu leen renvoi ki nga xam ne mooy maître Clédor mu ne procureur na ko may moom dina dem ba jigéen soor daal di jëli ki nga xamante ne ko mooy Ousmane ko indil ko ko bu ñu renvoyé procès bi ñeneen ñi ne nañ bàyyi ba Ndeye Khady wasin ñoom ñu ne procureur mu ne ñoom mënuñoo xaarate procès bi dañ koy àtte tey tey parce que maître El Hadj nee na sénégalais yi dañoo sonn ñu ngi leen di menacé ñu ngi taal ay kër jàmbur kon nañ ko àtte ñu xam fi dëgg féete ku nekk dem tëddi léegi procureur daal di jël décision ne procès bi dañ koy àtte tey bi ñu commencé àtte ci la avocat Ndeye Khady ak avocat Ousmane Sonko quitté ne dañuy quitté salle bi procureur jël micro daal di taal micro ne leen yéen fan ngeen jëm wax la wax leen ko ci tubaab ñoom ñu ne on va la salle ça va plus la pelle dugg na fii génn na fii procureur na Ndeye Khady eh eh madame madame Ndeye Khady xool ko mu ne ko Ndeye Khady Ndeye Khady ne ko waaw mu ne ko am nga ay avocat jël nga say avocat avocat bi la yoon may tamit am nga ko muy fii tribunal ku ne xam nga ne boo demee amoo njëg avocat état mën na la may avocat mun na la fayal avocat mu ne ko léegi na leer naa ngi yow say avocat ci boppam ñoom ñoo désister nee nañ duñ la plaider say avocat yi nga fay nee nañ duñ la plaider insister waat avocat yi nag ñoom dañuy quitter salle bi lu ci waay mën procureur bàyyi leen ñu dem. après ci la ko wax beneen daam bi na ko tappe mais leeralal na ko ci kanamu sénégalais yi nekkoon ci salle bi yëpp ñun ñëpp wóor nañu leer nañu ne avocat Ousmane Sonko ak avocat Ndeye Khady ñooñu dañoo gedd audience bi du ñu toog plaider Ndeye Khady du ñu toog plaider Ousmane ko Sonko Ousmane Sonko nag comme nekku fa kenn mënu koo plaider mais mënoon nañoo toog plaider Ndeye Khady mais ñoom ñoo bañ ne duñ fa toog ay ayca yow laay dégg. léegi ñëwal ci kattug Adji Sarr yi nee na Ousmane Sonko katte na ko ci bun beneen bi nee na da ko doon sotti iwil katt maanaam mbirum katt bi rek laa bëgg nga ñëwal ci. lu dul katt bi ko wax mbirum tëddee bi nee tëddee bi léegi Ousmane Sonko. Ah. Adji Sarr nee na jour bi mu koy njëkk a violé elle était vierge expliqué na li mu sol. wax na heure bi nga xamante ne que Ousmane Sonko si la sonné ci kabin bi moom moo ko ubbil ginnaaw bi ko ay Aïcha booleeg ak euh, Ndeye Khady Ousmane Sonko bi mu fa njëkkee ñëw njëkk a gis ak ak gi nee na moo ko ubbil léegi bu mu ubbilee Ousmane Sonko Ousmane Sonko laajtewul ku ñëw sone rek mooy xam na fi yàgg na fee ñëw. parce que ku mun a jóg rek dem ci benn bërëb directement ku xamul mooy laajte wala ngay wër yàgg na fa dem xam na fa bi mu demee mu sonné Adji ubbil ko muy client. Adji Sarr dugal ko ci biir après Adji Sarr ci la ko xàmmee que ni kii maa ngi koy gis télé maa ngi koy gis internet lan la war a def fii Adji xam naa xam nga boo gisee yenn kilifa yi da ngay am respect Adji Sarr ne ko tonton ça va nooy noo def ban massage ngay def Ousmane Sonko ne ko yan type de massage ngeen am. alors Adji Sarr ko ah. ñoom type de massage yi nga xamante ni que. moom ah. la ñuy def foofu. waaw ah, Adji di koy expliqué. Adji Sarr daal di koy expliquer type de massage yi nga xamante ni que moom la ñuy pratiquer ci cabine bi Ousmane Sonko ne ko dama sonn sama yaram day xaw a métti léegi maase ma na sénégalais xam ne jour boobu noonu dañu ne woon Ousmane Sonko chaque jour 4 mai lay def mais jour bi ko Adji Sarr njëkkee ubbil cabine bi Ousmane Sonko deful 4 mai benn fii rek la jël mu maase ko muy Adji Raby Sarr mooy jour bi Adji Sarr njëkkee euh, maase Ousmane Sonko mooy bi Adji Sarr jour bi nga xamante ne que Ousmane ko ci la violé Adji Sarr Ousmane Sonko newu ko wool ma beneen fii wax ko leneen da ko ne yow yaa may maase defal ma tonifiant parce que damaa xaw a sonn agi nee na muy maase Sonko tonifiant bi mu koy maase ba pare comme kilifa la mu jox ko respect tonifiant mooy lan tonifiant mooy massage bu dëgër da nga ciy def sa doole nee na comme Sonko kilifa la day xam day ragalal laal partie mu daal di koy ne tontoo massage bi jeex na par respect par respect léegi nag Ousmane Sonko daal di koy ne massage bi jeexut des na Adji Sarr ne ko lan moo des mu ne ko des na finition ne ko yéen masseuse yi duul rek ngeen di def fen rek ngeen di def tàmm ngeen ku ngeen maase di ko waxtaane maase naa diw maase naa diw bés bu ma déggee fenn nga ne maase nga ma maag yow la Adji Sarr nee na ci la commencé Ousmane Sonko xëcc loxoom daal di koy ne nii te jeexagul tëddal Adji Sarr ne ko tonton looy def nii waa defal ndànk est ce que doo bàyyi ba beneen yoon dimbali ma mu ragal parce que en ce moment Adji Sarr musul gis arme ci dundam ci àddinaam Ousmane Sonko dafa bi duggee Adji Sarr commencé bi mu summee tubayam dafa teg ñaari pistolet Adji nag musul gis pistolet ci film rek la koy gis te ku gis pistolet ci film xam ne pistolet ci film day reye kon xam na ne lii luy reye la donc elle a été menacée par Ousmane Sonko premier jour soo ko ni ko tëddal aji na ko tonton aji na ko tonton s'il te bàyyi noonu mu ne ko tëddal daal di xëcc loxo aji aji daal di koy tëddee daal di koy teg ci tëral ci suuf aji nee na bi mu ko tëralee ci suuf mu daal di jël huile bi nga xam ne moom la ko aji saar daan maasee daal di koy sotti ci kaw yaramu aji saar ba mu fees jël huile bi sotti ko ci boppam sotti ko ci yaramam daal di jël loxoom daal di baaraam xale bi bi mu baaraamee xale bi xam làmb ne mu xam ne xat na mu gën a sotti huile maanaam lubrifié wu neen agi nee na mu commencé jël weene di ko namp naan ka mm, mm, mm, ñu ne déet waay mu gën a glissé ñu ne déet waay mu baaraam xam ne affaire xaw na dëgg mu daal di oo sotti huile bu bari daal di ko cay ne jax nag li ya indi coow li mooy premier jour bi donc na leet ki ñëpp ne premier jour bi Ousmane ko deful 4 mai aji kesee ko ubbil bi mu violé Adji Sarr ba pare ne Adji Sarr li ma lay def nii foo ko wax dinaa la dàqulu ci cabine bi jox tournoi bi nga xam ne moom la Adji Sarr joxe woon ci cabine bi mu ne ko tuddoo noonu xam naa sa tur xam naa sa sant dem ba wax Adji Sarr village bi mu dëkk loolu moo tax ñu toppee Ndeye Khady complice parce que Ndeye Khady moom moo jël Adji moo xam turam dëgg moo xam surnom kon Ndeye Khady moo jox turu dëgg agisaar Sarr Ousmane Sonko wax Ousmane Sonko village bi Adji Sarr jógee wax ko lépp ci moom Ousmane Sonko daal di koy menacé Adji Sarr ne ko fépp foo génn wax ko dinaa la dàqalu bu ma paree am naa ñoo xam ne mën nañ la rey ma effacé la sur kenn du la gis kenn du la waxtaan waxtaane kenn du la dégg voilà Aïcha leneen <laughs> léegi lan mooy finition Tunisien Adji Sarr nee na finition bi ñu doon def ci cabine yi te yéen loolu umpalewu leen sénégalais da ni di dem ci cabine de massage yi xale yu góor yi nangu leen finition yi am ci cabine de massage yi mooy ñu masturber la wala ñu jël la sucé la maanaam ñu jël sa concombre bi di ko macc di ko macc ba nga daanu wala ñu jël sa concombre bi daa di fii diw huile di la ko jambal di la ko jambal ba nga daanu waaye Sonko na moom caga ji daa ëpp moom rencontre direct moo ko gënaloon nga sotti huile jàmb concombre bi wala nga sucé ko mu gaa pap